Wabarakatuh. barakaatu ngi leen di nuyu di leen siara te di leen tuubal di ñaanal ñepp jàmm te di leen baalu xaq te di leen baal di ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu boole jàmm ak tawfiq ci barke bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi jaaxi cheikhul radiyallahu anhu gannaaw loolu ñu am ay leeral yu ñu bëgg a leeral bu gàtt rek jëm ci weeru tabaski wi ñu nekk ndax dafa am loo xam ne jaaduwut te normalut te sañuñ cee noppi tamit ndax xam nañ ci dara te itam niñ ko bëgg a doxalee du dëgg te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne assaakitu xanil xaq saytaanun axras noppi ci dëgg ku ko def gis dëgg war koo wax te waxoo ko wala gis ay fen war ko weddi te weddiwoo ko seytaane su lunga <laughs> te dafa waxoon ne balliqoo an nii walaw aaya weeru tabaski wi ñu nekk tey jii la juróom-ñeenti fan ci weer wi sarxiyan wa falakiyan tey la juróom-ñeenti fan tey jii day juróom-ñeenti fan ci weeru sul xijja weeru tabaski tombe ñaar fukki fan ak benn ci weeru août tabaski di àllarba 22 août muy euh, ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru août 2018 ci atum calendrier jant bi bu dee ci euh, atum jullit ñi hijriya muy tey jii nag lay juróom-ñeenti fan ci àdduna bépp àdduna bépp ñoo bokk wenn weer wi réew yi euh, arab yi nga xam ne wala réew yi nga xam ne samedi la 11 août moo doon seen séntu bu njëkk kenn gisul weer wi amut kenn gisul weer wi te seen boroom xam-xam yi yëngu ci wàllu fëlëg waxoon nañ leen ko ne leen bu leen fi joxe déclaration ci wàllu weer ndax weer yi mënta feeñ danaa leen leeral condition yi nga xam ne moo taxoon weer yi mëntoon a feeñ fukki fan nag benn ci weeru août tolloo gisub gaaw ci la réewi araab yi doon seentu weer réewi arab yi gën a siiw fu mel ni Saoudia fu mel ni Imaratul Arabiya fu mel ni Égypte fu mel ni Koweït fu mel ni Bahreïn ak réew yooyu biñ ko séentoo tamit réew yi nga xam ne fa la jant bay njëkk so amul ci benn réew bu gis weer wi te ñoom bañ ko séentoo gisuñu ko nangu ñoo jox benn déclaration ci ne gisuñu weer dañoo noppi rek ndax lan xam nañ ne saxoodee mooy organiser aj gi te bëgguñoo wuuteeg moom tax ñu noppiwaale loolu muy njuumte bu rëy ci biir loolu tamit xamal nit ñi ne leen du nit ñi ñoom ñooy jàpp xarafa déedéet nit ñi du ñoom ñooy taxdiit ñoo naan bis sàngam mooy xarafa loolu déedéet weer wi ci boppam mooy jàpp we mooy jàpp xarafa weer wi mooy taxdiit loolu moo koy limité weer wi ci boppam moo naan bis sàngam mooy xarafa ndax bi sàngam mooy juróom-ñeent du cage ne waa ya wala benn ci nit ñi moo naan bi sàngam la xarfa déedéet bu weeru silxija feeñee dañuy konte ba am juróom-ñeenti fan képp kum fekk màkka ngay aj mooy sa xarafa képp kum fekkul màkka ngay aj xamal ne mooy xarafa nga woor ko am yool xarafa waaye du càggee ni nit ñi ci boppam ñoo naan bi sàngam mooy xarafa comme ni ko waa saxoodiya defee ren te yàgg koo def 1981 ba léegi a Cheikh Saalihu Mbàkke rahimahullah 2006 bi fi yooyu amee ci wàllu korote gi ba am ci ku ñëw ci kilifa ya ba ba fani korate gi weesoo ne ko tey dañuy jàpp ñaata fan ci weer wi sëriñ bi ne ko weer yi mooy jàpp boppam waaye nit ñi duñ ko jàpp weer wi moo naan tey da ñaata fan waaw loolu weer wi moo koy limité ndax weer boo ko séentoo gis ko ak bët ñu dem ba noddu gee ngay seen weer yu ba tey weer woowu fii keroog weeru benn fan munu fee xaar noddu gee loolu il faut nit ñi xam ko weeru benn fan munu fee xaar noddu gee saa bu ko fi noddu gee gi fekkee rek weeru ñaari fan la ma del siwaat ci keroog bi ñu séentu weer wi euh, imaaratul xarabiya rawee na Sénégal ñeenti waxtu quatre heures de temps ñoom bi ñu séentoo weer wi dañ koo gis ñu ne ah séentu nañ ko waaye gisuñ ko de seen Dubai TV boobu waaye ñi ngi xaar ba xam lan la seen kilifa yi di wax ba xam dañuy mottali wala nu ñuy def mais waxaatuñ benn déclaration dañoo bàyyi noonu rek Imaaraat fa la jant bay njëkk a sowee une de temps mu doro so Saxoodiya Saxoodiya ñoom bi ñu séentu weer dañ koo séentu ci seen gox yépp biñ ko séentoo ñu ne am na ñu ko gis ñu ne ñu ko gis ñu ne ñu ko gisee ci benn gox bu ñu wax xoota asudayr asudayr ñu ne ñaata nit gis ñu ne ñeenti nit ñoo ko gis ñett ko gis ak Muhammad al-Xudayri mi nga xam ne dafa bokk ci ñiy gis ci wàllu xam-xamu fëlëg waaye ci nan nañ ko gisee maanaam du bët de déedéet léegi foofu nag borom xam-xami charia ñooy xool ba xam charia lan la wax ci gis weer ndax gisu gisu bët la wax wala gis-gisu appareil seen marsat yooyu ñuy xoole weer yi ku ci xool weer yi danga ko gis bu say bët baaxee mais a ruya kooku bi xaynin mujarrad la waaw laa bi télescope wala bil miqrab wala bil marsat il faut nit ñi xam loolu euh, saxoodiya dafa am benn politique bi ñu doxal bu sew ci am ay réew yu mu bëgg a am ay réew yu mu bëgg a jàppale ak bëgg a wan ñi ne maa ne ci bopp bi tax ñuy politique weer wi xanaa nit ñi xamuñ ne fii ba 2050 saxon de mi nga calendrier boo xam ne ci weeru hijire bi bis yépp teñ ko bàyyi woon ni ko yante bi bàyyi buñ ko séentoo gis ko fa lilahi alhamdu suñ ko gisut ñu matal fanweer du loolu yante bi jàngale dafa am ay réew yoo xam ne dañoo contre saxon ya ndax jubowun dañoo am dañoo xuloo saxon de di dox ci seen kaw euh, malisia Malaysia ak Séganfora Indonesia ak réew yu mel noonu Malaysia armée dafa bokk ci armée bi nga xam ne moom la Saxoode yóbbu woon Yaman Saxoode mi ngi jiite 47 réew yoo xam ne dañ ko jox seen arme ñu dem Yaman di xeex ak Saxoode ak ak Hosiyone yi di fa rey lu bari te ku ne xam ne ne dañuy rey ay siwle ci ëpp ay xale ak ay jigéen di yàq ay barab ay dëkkuwaay xiif ba fa nekk mara day taali tawat ya fa nekk mara day taali te loolu ñi ngànk addu bi ñoo ko confirmé ak télé yi nga xam ne dañoo am indépendance ci wax dëgg waxuma nag télévision yi nga xam ne dañoo topp waa Soxodee rek lu leen neex neex na leen nit ñi seetaan télé nañ moytu télé yooyu tele bi ñu tudde alxarabiya xanaatul xarabiya walla xanaatu alxarabiya alxades wala xanaat Sky News alxarabiya wala mboolam xeeti télé Dubaay yi nga xam ni mënoo ràññee la la ñuy wax dee ko seetlu duñ wax mukk dëgg dangay dem siifur télé yi nga xam ne dañoo am indépendance ci joxe xibaar fu mu xew ñu wax la fa xew wax dëgg la ca dëgg ñu leeral ko malicier nag ñoom dafa bokk ci réew mi njëkk a wax ni weer wi gisuñ ko samedi dafa njëkk wax ne ñoom àllarba la ñuy tabaski le 22 août bi mu joxee loolu Séganfora topp ko ci Inde topp ko ci ak yeneen réew soo dee xam ne am na koy propagande moom tamit mu gaaw wax ne talaata lay tabaski la vingt la la la xarafa pour contrôler rek pour war ne maa jiite jullit ñi il faut nit ñi xam ne mbir mi politique la mais du l'islam parce que Malaisie ak ak ñi nekk Inde ak euh, waa Singapour ñoom bu ñu waxee ne ñoom àllarba la ñuy tabaski le 22 août joxe déclaration ci la soxodee door a joxe déclaration ci maxkama lu xolyaa boole xibaar yi mu amoon ca barab boobu ñoo gis nañ ko ndax ña ko gis ci alxoota euh, sudayr boobu muy ñeenti nit ñoom bi ñu xoolee ne gis nañu weeru ci ay appareil dañ koo jël xibaar bi yóbbu ko ci maxkamal xoliya bi nekk Saxoodiya Riyad capital bi ñoom ñu téye xibaar bi information bi dema dem ba mu neex leen ñu ne léegi am na ñu ne gis nañ weer wi kon la 21 la tabaski maanaa la 20 la xarafa noonu rek la demee may xamal nit ñi foofu na leen amul benn réew ci réewi arab yi ku xe nit ku gis weer wi ak bët amut déclaration bi soxna day joxe mi ngi ko jëlee ci quatre personnes yoo xam ne dañ ko gis ci ay ci xoolukaay lëngoor léegi na sareexa nangu na loolu il faut nit ñi xam ne soxna day dafay politique mu bàyyi lislaam ji mi politique du ñoom ñoo naan bi sàngam mooy xarafa mu nekk ko weer yi moo naan bi sàngam mooy xarafa kum fekk màkk muy saxaara xarafa kum fekkul màkk muy sa xarafa mu nga woor ko am yool bi comme ni ko yonent bi alayhi salaam jàngalee mbirum il faut ñu muy dëgg ni mu fi di laam-laamal kenn wala ñu bàyyi nit muy fooye kenn kenn ku ne am nga droit ci wax dëgg waaye saxoo dee laa nga xamal ni fi mu sukkandiku ñeenti nit la wax ne ñoo gis weer wi waaye gisuñ ko ak bët dañ koo gis ak appareil il faut mu leer jullit ñi barab ban nañ ko gisee alxoota asudayr fa lañ gise weer wi quatre personnes ci appareil lañ ko gis waaye du du bët yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu nekkee màkkatal mukarrama bu weeru ko masaana jot bu jant bi sowee du nangu mukk ku yéeg ci montagne ji séntu ba xam jant bi sonna buñ daan séntu weer tamit du nangu mukk yéeg ci aw xeer wala aw doj di xool ba xam euh, weer feeñ na waa ku nanguwul lool nangoo weer woo ne ci appareil lañ ko gis may nit ñi ne weer yi dafa tege ci ay ay norme ay régal yu mu daw kenn mënu ko fee jële wawuta si jaxal sam sa diyaan wal xamara nooran wa xadruhu manasila li tax la ma adada sinina wala xisaaba waaw maa xalaqal lawsa illaa bi xaq nu fasilu ayaati li xam yàqilun waaw képp waxu li si xalax lay wan nahaara wa samsa wala xamara kullun fii falakin yasboon kenn ku ne am na cercle bu la yàlla bindal benn fële nga ci daw am ci loo koy daw am fooy tàmbalee am fooy yam am fooy xaajale loolu kenn mënu ko fee jële xam-xam nag te ñoom nangu nañ xam-xam bi may xam nañ ko parce que am nañ ay borom xam-xam yu spécialisé ci wàll ci wet googu waaw waxul si jaxan lay la wan nahaara aaya tey ni fa mahawna ayatal layli wa ja'alna ayatal nahaari mubsira li tabtaqu fadlan min rabbikum wa li ta'lamu adada sinina wal hisaaba weer weeri dafa am fu muy tàmbalee am fu muy yem am ban bis bu muy feeñ am bis bu muy mat guddi fukk ak ñeent wala guddi fukk juróom am heure bu muy àgg ci muxaaq kal hurjanul xadiimi am waxtu bu muy xëy am waxtu bu muy feeñ samedi boobu nag seen boroom xam-xam yi may tudd mboolem ñi may gëstu xam ñi gëstu xam-xam boobu xam nañ ko euh, Muhammad al Hawda mooy mudirul markasul falaki bi nekk imaratul xarabiya avant le 11 ci sa ci weeru ut bi moo njëkk a wax de weer yi munta feeñ samedi waaw munta feeñ samdi ndax maanaam bu dee ci réew yi lislaam yi nga xam ne ñoo féete penku weer yi day njëkk sa jant bi waaw bu dé ci réew yi ko fété euh, sowu jant bi moy ñëkko so waaye lim koy sooyee du ko may ñu gis ko parce que fay ag ci li al iqtaru bainal khamar wa shams ñu dañé ci benn ligne bo xamné khatun xattun waxami lañ koy tuddé moy ligne fo jant bi limi ñëkko njëkk soo du ko may bëtt mën ko gis dafa am ay norme yu xam-xam teural yu mëna gisé wér wi ak bëtt modi né na fekk né jant bi njëkk na so wér wi lu mu gàtt gàtt vingt cinq minutes am na sax ñu wax ne trente cinq minutes waaye bu fekkee li mu ko njëkk sooyee matul vingt minutes nit munu a gis weer ak bët bu fekkee lim ko njëkk sooyee matul douze minutes wala onze minutes nit mënu ko waxuma bët waaye télescope sax mu ne su mu ne surtout gis weer wi kon na fekk na jant bi njëkk naa sooyee weer lu mat vingt minutes vingt cinq minutes ñi ci gën a wér sax trente cinq lañ wax. na fekk tamit jant bi mu sowee na bàyyee maanaam euh, na bàyyee longueur weer wi fi jant bi sowee ak fi weer wi nekk na mat huit degré ci leeraay bu ñu mën a gisee weer wi weer wi tamit na am pour cent lu mu gàtt gàtt ci leeraay éclairage su ñu mën koo gis te kuy xool keroog weer wi samedi ci ngoon zéro pour cent la éclairage am pour cent kenn mënu koo gis ci àddina kooku mooy loolu parce que jàpp bi ñu ko jàppoon ci ginnaaw ca ginnaaw jàpp bi ñu ko jàppoon ca ginnaaw kooku moo tax mu ne su noonu gis weer wi waaw waaw muy guddi fukk ak ñeent ci réewi Afrique yi di guddi fukk ak juróom ci weeru araab yi bu ñu ko jàppee ñeent weer yi mënta kaamil loolu waxoon naa leen ko bi ne weer wi bu ñu ko séentoo dimanche dañ koy seen mënta kaamil dimanche la weer wi feeñ bu dee ci réewi araab yi ñoom seen guddi fukk ak juróom lañ jàppoon weer wi nee nañu ci ñom seen calcul bobu motax wéri fokk da warona kamil ñom xamoon nañ loolu kon muhammad al hawda di mudiru markasul falaki bi nek dubai mo waxoon wéri mu nees koo gis ci samedi ci ngoon la 11 mu tek ci ne daane bepp rew bu wax ne gis nga wéer wi daf sax wax ne lu ne dafa am ben min jihatul ukhra maanaam ben côté ci julli ñi ko xamne da wax ne weer feñ na wala da wax ne euh, talaata la tabaski bu mu ne bu dee loolu ah kon talaata la tabaski mom loolu la ci tek dafa wax ne weer yi mënta feeñ tey samedi ci ngoon mënta feeñ lu dul ne benn côté ci ay nit ñoo wax ne tabaski la talaata la 21 mu ne bu dee loolu moom kon kon tabaski la 21 lay nekk mais bu dul loolu nga xam dañ ko tey ci xam-xam tabaski la 22 août lay nekk benn ngoog aljarwaan moom tamit borom xam-xamu fëlëg dafa wax ne moom tamit loolu kooku wax la wax mooy le 22 août la tabaski tabaski mënta nekk la 21 août lu dul ne benn kuréel ci jullit ñi ñoo joxe déclaration benn bu wuteeg loolu ci seen doxinu bopp Muhammad as-Saxdoon euh, as-Saxdoon mi ngi nekk Koweït boroom xam-xam la ci wàllu xilmul fëlëg moom dafa wax ne weer yi mënta feeñ tey ci samedi bi mënta nekk parce que bu dee saxoon yi ak réew yu ko wër jant bi mu ngi fay njëkk a soo weer wi lu mu gàtt gàtt onze minutes te mu ne loolu mu ne su fee gis ak bët télescope sax mu ne su koo gis ci moom loolu la wax daane na képp ku wax ne gis nañu gis na weer wi day fen wala boog bëgg naa indi am lënt ci jullit ñi moom ma wax loolu di ay waxama kon seen boroom xam-xam yi yépp euh, liñ ci wax mooy loolu waaye ma xamal nit ñi weeri feeñul ci réewi arab yi amul benn réewu arab ak nit ku ne gis na ko saxoo dee moo ne gis na weer te ñeenti nii la wax ñoo ko gis ci appareil loolu rek mooy problème bi est ce que loolu doy na ban gis la sareex wax man na yaakaar ne gis-gisu bët la sareex wax bi xaynin mujarrad saa sam xam ne soo moo li ru'yatihi wa aftaloo ru'yati maanaam ru'ya kooku gis-gisu bët la waaye du gis-gisu appareil yàlla ci boppam ci alxuraan séparé na ñaari gis-gis yi am na loo xam ne gis-gisu bët la am ci loo xam ne gis-gisu appareil pour mu gën a leer xam-xam bi ndax xul unsura ma saa fi samawati wal ard wa ma tuxnil ayatu nusur sunu borom dafa wax ne xool leen asamaan yi ak suuf yi ngeen setantal ko li ma fi def ci ay kawteef pour ngeen man koo xam setantal kooku appareil il faut ñu am télescope in faut ñu am ñu am ay satellite yu dem ci jaw ji il faut ñu jël ay appareil dëpp ko ci suuf si dugg ci suuf si xar ko seet ko analyse ko xam li fi nekk ngir loolu man ñoon kàttan suñu borom mu ne waaye loolu ña koy def duñ ko gëm mooy yéefar yi mooy tubaab yi an xaw mi laa yuminun waaye mën naa jëriñ jullit ñi asamaan si fi nekk ci ay bidiw nekk ci ay xeet ci ay niyax ay musanabaat suus li fi nekk ci weñ ak ndox ak or ak jamaa bët mënu koo gis il faut appareil koy gis moo koy turé il faut ñu xam barab yi am pétrole kooku appareil moo tax mu def xulu unsuro nasru xil mu nasar boofu la ñëwee bi muy wax nag ak gis-gisu bët nga xam dafay dellu ci ya dafa wax lu leer naññ wala xadara eexu bil ufixul mu biin bi mu wax ak yonent bi sallallahu alayhi na ko gis na boroomam sallallahu alayhi wasallam bët la gisee boroom waaye du appareil Euh, wala xadara nasarata uxra hinda sidrata muntaha gis ak bët la laqad raa min ayat gis ak bët il faut nit ñi xàmmee lan mooy gis-gisu bët ak lan mooy gis-gisu appareil saa islam dafa wax ne ku gis ci yéen lu ñu tere na ko mettilu na ko na ko dindi man raa minkum munkaran moo tax sareexa moo tax Sëñ Tuubaa doon wax ca jawhar ne wala may gis baasula si exactement ci nit sañu sañoo gëstu am néegam wala ay yéeréem jël appareil di ko xool ba xam yor na loo ñuy tere moo li saa sallam xool in foo man raa minkum munkaran dañuy fekk loo xamee ne dañ ko gis ak bët nga door koo tere waaye jàngeen da ngay toog rek jël sa appareil jël say jumtukaay dem di vérifier nit ñi di vérifier seen néeg ak seen yére yi du xam ba xam yor na ñoo amoo droit boobu man mooy gis ak bët ku gis ci yéen lu ñuy tere mu gis ko bëtam bii waxuma lu mu gëstu de wala lu mu wutee ay xool ko gis ak bët bii na ko dindi ci yéen su ko mënut na ko dindi ci waxam su ko mënut na ko mettitlu man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi qalbi fa bi lisaani fa in lam yastati' fa bi qalbi aw a qaala alayhi salaatu wasalaam kon gis-gisu ru bët la salaay salaam jàngale waaye du gis-gisu appareil saxoo dee gisul weer wi ak bët weer wi nag bu feeñee ñu ne teele benn fan xam nga réew yi ñu njëkk yi njëkk yi seenu àll gaaw gisuñu weer wi moo tax bi ñëwee ba ci dimanche ji ñun africains yi gis nañu weer wi ak réew yëpp yi sukkandiku ci loolu biñ ko gisee tamit weer wi fekk fi mu la duggee xa man doon naa ko xool di chiffre comme dama leen ko wax su dañuy suivre weer wi adduna bépp lañ koy chiffre réew mu ci nekk ma ne wax heure bi ñuy séntu weer heure ba fa jant bee so heure ba fa jant bee tàmbali heure yi ñu am yëpp kon xam ne mbir ñun ci ay caaxaan dañ koy gëstu weer yëpp tamit la ñuy gëstu depuis ñaar fukki daanaka leen mat ko 96 ba fii may waxee yéen amu ci benn buy manqué fépp la ñuy siifu rawat na bi jumtukaay yi amee ak léegi réew yëpp la ñu topp pour ñu xam ne mbir mi ñor nañu duñ ko bàyyi nit ñi ñu ne fii di ko di ko di ko caaxaan wala ñu réer nit ku ci wax ci weer lu dul noonu dañ koy weddi ak koo mën a doon pour ñu xam ne daal ci li wér adduna bépp mën nañoo bokk tabaski ko benn yoon muy muy muy ren ji mooy li ko war a mooy bu fekkee dafa am réew yu ñuy jiitoo benn fan ñoom buñ ko séentoo seen séentu mu jëf gisuñu ko réew yu koy séntu seen seen séntu mujj réew yëpp mën nañoo bokk gis weer bi loolu rek la moo tax ren mën nañoo mën nañoo bokk tabaski waaye sax de xuloo gum xuloo yéen ci ay réew tax mu bëgg la ma ne maa jiite mbir yi moo tax mu indi wuute gi mu waaye loo xam seen borom xam yi dàq nañ ko te gisuñ ko gis-gisu sharia bi sharia wax salaay sana tere ñu yéeg ci montagne di séntu weer weeg jant bi kon du maye ay télescope pour ñu mën ci xam-xam weer yi feeñ na xel mun fa la li ñuy jàng rek mooy ndax weer waa ngi fi wala weer fi moo jant bi luy njëkk a so ñaata mi la koy njëkk a sowee lu mu koy bàyyee pour ñu mën cee sukkandiku mën koo gis ak bët loolu rek la mais nag duñ ab ah, tey dama xam ne weer mi ngi fi saa boo dëppee appareil na ko gis jugul ci asamaan si ci asamaan la dëkk dafa am heure bi muy bu muy xëyee ci penk bi fenk ci penk bi am heure bi mu so ci sow bi li feeg ak aggul ci yenn moment yi saa boo dëppee weer saa boo dëppee appareil da nga gis weer wi kon saxoodee foofu la sukkandiku ñeenti nit quatre personnes la wax ne ñoo gis weer wi ak appareil mu sukkandiku ci loolu pour raye yeneen réew yi parce que ñoom dafa am nu foo suñ maaliya bu mu yor boo xam ne ci lay xeexi réew bépp bépp réew bu mu bëgg a xeex ku ànd moom ci la lay xeex boolaak tubaab bi diggeek tubaab bi américain yi ñu rey julli ñi loolu rek la fi nekk ma di xamale ne saxoodee ña fa nekk ay nit lañu comme nit ñi duñu sëtu yonente bi duñ ay saxaaba bokkuñ ci sëtu saxaaba yi ay buur yu xeex ba dugg ba dugg fa lañ occupé la fa nekk daree julli ñi rek mais du la nen barab yi fa nekk mooy barab yu tedd ya muy Kaaba ga bu dee Madina mooy barab yonent bi alayhi salaatu wasalaam mais nit ñi fa nekk ay buur kese lañ di dund adduna di noos di naan sàngara di dem ci jigéen ñi di tox di def lépp bàyyiwuñ dara seen imaam yi am na kuñ ci jàpp fan yi bu yëgut ñu koy tuddee euh, Mohamed Assaale dafa def benn xutba rek ci ajuma ji ci daan daana ci masjidul haram wala doon jiite def benn ba waaraate wax li naqare yàlla ak yonente bi ne dañ ko war a wax wax li nga xam ne moo baaxul ne ñëpp dañ ko war a wax ku gis lu baaxul dañ ko war a wax ñu jàpp ko tëj ko parce que xam nañ seen buur yooyu normal luñu képp ki nañ ko tëjee gis ngeen Cheikh Salman Hawda dañ ko àtte àtte secret boo xam kenn yëgu ko tuumaal ko jàpp seen borom xam-xam yëpp nga xam ne xam nañ liñ bëgg a doxal ci jamono jii ñu ko tuddee l'an 2030 ne fa la soxodee war a jëm ci avancement ci avenir ci àdduna lëngalu ko tubaab bi seen borom xam-xam yi duñ nangu loola ñu jàpp ñëpp tëj leen seen bi yéegut ci weer wii lañ ko tëj te doon na jiite ci masjidul xaram ci jàkka ci kaaba gi def xutba ne képp gus lu neexul yàlla dañu cee war a wax waruñ waruñ ko bàyyi noonu ñu jàpp ko tëj ko parce que xam ne ne seen buur yi dañoo sàggan lépp lu yàlla tere dañ koy def kon nit ñi nañu bàyyi xel ci loolu nit ñi du ñoom ñoo naan teel a xarafa déedéet tey jii may waxee yéen di talaata di la 21 août mooy bisu juróom-ñeenti fan ci weeru si la tey jii lañu waroon def xaraf waaye du démb tey jii ku ko woor am nga yool bu ko war a xarafa bii salaay salaam doon digle ñoom defoon nañ ko fi 2006 xam ne def nañ fot chaque jour ci fot yooyu la ñuy dëkk ngir ay propagande ngir parce que xajjun taasiis yi la ñuy def mais defagu defutum alxaju al bi bi lislaam doon jàngale déedéet pour ay intérêt ku ne xam ne loolu kon saxoodiya ak réewi arab yi mu xaritool muy imaraat muy Koweït muy Bahreïn muy Égypte ñoom ñoo tabaski tey le 21 août sukkandiku ci saxoodiya waaye benn réew ci réew yooyu ku gis weer wi ak bët amut ma ko ma waxaat ko beneen yoon te ñiy tabaski tey soo leen boolee ñoom ñëpp seen lim mutu 200 millions personnes te jullit ñi ñu ngi ci 1 milliard 500 millions boo boo léegi nag muy Afrique ñi ñiy tënku ci sariya nga xam dañuy gis-gisu sariya dañuy tënku ak li xam-xam maye un milliard trois cent euh, millions personnes le vingt deux août la ñuy tabaski mu ñu nekk Malaysia ñu nekk Indonesia ñu nekk fora ñu nekk Inde ñu nekk Chine ak réewu Afrique yi ak ak ñu nekk Irak ca Najaf ak ñëpp boo leen dajalee ñoom ñëpp un milliard trois cent millions personnes mat nañ ko. ñoom ñëpp le 22 août la ñuy tabaski teg ko nag ci charia mooy dañoo gis weer wi ci dimanche ci ngoon ñee gisuñ ko samedi teg ko ci jumhur bi lislaam soxla teg ko ci xam-xam yi régal yi xam-xam saxal régal xam-xam saxal kon ku doon wut jumhur jumhur a ngoog ma xamal nit ñi loolu li ëpp ci jullit ñi jullit ñëpp ci àdduna fi ne boo leen dajalee un milliard cinq cent millions la un milliard trois cent bi suba la ñuy julli àllarba muy le 22 août tabaski sukkandiku nag ci gis-gisu sariya xam mooy bët mooy dimanche lañ gis weer wi parce que réew yi seen penku yépp samedi mo doon seen seen mën ñu koo gis biñ demee ba dimanche li ko jant bi bàyyal may na yeneen réew yi nga xam ne moo doon seen seen mujj gis ko yeneen réew yi nga xam ne moo doon seen seen mujj mën koo gis loolu rek la parce que saa bu ñu réew yi jiitoo benn fan ñoom buñ ko séentoo seen seen mujj gisuñu ko ëllëg seen 30 suur la leen weer yi bàyyeel moom la ñuy bàyyeel ñun ñu am seen bu njëkk loolu ñuy gis ci xam-xam fële xam nañ li ma wax kon il faut euh, nit ñi bàyyi xel loolu waaw ñu xam ne daal xarafa du nit ñu ñoo naan tey la weer yi moo naan tey la saa bu weer feeñee weeru sil hijja ñu wàññi ba mat juróom-ñeenti fan juróom-ñeenteel boobu mooy xarafa suñ ko defee xarafa mooy xarafa suñ ko deful xarafa mooy xarafa te arafa dafa bokk ci ponk yi nga xam ni mooy ponk bi gën ci ponk añ màkk ku ko deful sax aj baaxul saxoor yi dafa 2006 dem bam neex ko mu yónnee ay lettre ci réew julli ñi naan dañuy jéggalu yàq aji jàmbur yi ñoo xam ne lislaam du la ñuy kafe te ñii dañuy kafe diine ji fii may waxee saxoor yi ànd naag la mat fanweeri réew ak juróom-ñaar ñu dem yaman di bombardé te réew ma ñu bombardé lañ yàq julli ñee ko moom te ay xale lañu rey di rey jigéen ñi lu mat 600 personnes yoo xam ne dañoo feebar feebar ko la ña fa lu mat 3 millions yoo xam ne dañuy dàq ñu génn seen i dëkkuwaay ña nga fa te ay jullit te saxoon yaa koy def turki gii ñu bëgg a gis ngeen ko ba yàq seen xaalis ba muy liira soxodee ñoo jaar ci suuf neexal américain yi ñoo ko wax waaw ndax kër moo wax loolu Mohammed Ben Salman wax na ko ñoom ñooy lëkkaloo ak yéefar yi diray leen ci julli ñi ku leen neexul parce que gis nañ ne Turki ni muy doxee neexu leen te ragal na mën naa dem ba nguurul islam mujj ci loxoom lépp dekkiwaat ñu ko xeex ci suuf Égypte moom xeex nañ ko ba léegi nekk na ab teel nekk na teel bépp yeneen réew yi si taxul may wax gis ngeen xatara mi fi komplo woon te daaw dañuy dugg we atum 1439 euh, am na ci réew yu jege yi Tunisie yi bi muy def déclaration pour na weer yi feeñ na juleegul takkusaan <laughs> juleegul timis séentoogul weer naan alxames la benn fan daaw bi atum ren mi xam nga ñun africain yépp ñi ñi nekk ci normal aju mu doon benn fan ñoom ñu def ko alxames waaye bi ñu joxe seen déclaration ne alxames la seen benn fan ñoom seen teguñ weer juleeguñ sa takusaan xoolal yooyu yooyu yooyu kàcc ba waa réew ma dal ci mufti ba ne ko yow da bëgg a roy waa Saxoodiya xanaa xamoo nit ñi xamul ne fii ba 2050 Saxoodiya yor na calendrier bu koy wan atum jullit ñi yépp ndax seen koom-koom yi jëfandikoo ak yeneen ak yeneen kon il nit ñi bàyyi xel ci loolu di maam aj makka du ay caaxaan nañu ci dimbali lillaahi wa rasuuli bàyyi lislaam yi ñuy propagande li li may tëjee daal di ko xam ne moo di ci xilmul fëlëg ci sharia tey jii la juróom-ñeent fan ci weeru weeru silhijja àdduna bépp parce que réewi arab yëpp biñ ko seen doo seen seen dum te gisuñu ko Égypte kenn waxu ne moo gis weer wi ak bët du Koweït du Hamaan du Imaaraat du saxoo dee gis ak bët saxoo dee képp tullum moo wax ne gis na weer wi ci benn barab ci quatre personnes ci appareil loolu il faut ñëpp xam ko dossier yaa ngi fi envoyé ko ba dañ ko gis ci benn yoon bu koy tardé dañ koy siifur yépp ndax mbir boo ci dundut di ko gëstu ko xam mais affaire ay propagande la ndax am na réew yu merool nangu seen armée bi mu leen joxoon nangu seen armée bi ñu joxoon saxoo dee mu meree leen loolu wan leen danaa la wax maa jiite jullit ñi te jiitewul dara il faut nit ñi xam ne nekk màkk ay buur lañ yu fa nekk mais nekkul ay jotewuñ dara ak salaay salaam ay buur lañ yoo xam ne boo toppee seen askan mi ngi dellu ca bani nu xay nu xaa ca yéefar yoon xeex salaay salaam dem di ay yahud moo tax ñoom du soxla yaa ngi jàppale Israël contre Iran jàppale Israël contre réew yi jullit yi jees réewum jullit mu mere rek fay américains yi xaalis wala tubaab bi ñu jaar suuf yàq sa politique kon loolu mooy li doon jottali jullit ñëpp waaw na ko nit ñi bàyyi xel nit ñi nañu seet lu ñuy def te gis nga naar yi man jëlee naa waxaabi yoone yi wala ibaadu rahmaan yeneen kuréel yi nekk ci réew mi ñooñu il faut nit ñi comprendre leen ñoom diine yi xaalis lañ yor waaye yoruñ diine yàlla ji fu ñu nekk xaalis leen fa bàyyi képp topp gi ñu topp soxna dee topp leen ngir diine dara xaalis doog leen a toppe li feeg soxna dee yaa ngi leen di financé xaalis Koweït di ñoom ci liñ bëgg koré gi weesu biñu ñu koor sénégal ak réew afrique ak l'islam bépp ño bokk warandoo alxames bam dess lenn ci ay réew yo ño tambalé wo ño war alarba muy fu melni mali fu melni côte d'ivoire fu melni niger ñom ahmed lo ak ibadou rahman yi nek sénégal and ak ñom ci loola contre wa makka nee dañuy contre ndax boba amna ay mbir yu xew yo xam saxo saxodee ñi ngi tambalé xex wahabin loolu nakar ñoom ñu gedd dem ànd ak mafia yi nekk ci réew yooyu ma wax mafia yi nekk Mali mafia yi nekk euh, Niger mafia yi nekk Côte d'Ivoire ànd ñoom ci loolu tàmbale mel ni kuy contre seen seen bàyyi ji leen daan financé xaalis bi loolu amee soxna day yëg ko jaar ci suuf waxtaan gouvernement Sénégal muy Macky sàll ñu jël suuf jox ko Ahmed Lo neexale leen ko bi ñu demee bay wori ña nga xam ne ñoo dooroon koor gi bisu àllarba daana ñoom gis nañ weer wi àllarba ci ngoon muy Mali ak Niger ak Côte yi ko waxoon ba ñu koor daal di jël xibaar bi jox ko seen ñoom ibadofan yi nekk Sénégal ak wahabi yi ñoom ñu bañ loolu nit nag nan la lañ mën a doyee bi ngay woor bi ngay war a doyu la matul 30 jours bi ñu koor ibadorahman yi alab lañ tàmbalee woor ànd koog waa Mali ak waa Niger ak waa Côte d'Ivoire bi ñu wooree ñu bañ mooy am na lu ne suuf moo ñoom diine yàlla ji ñoom li ñu def moo gën a garaaw sax la yëfee daan def muy jaamu xërëm parce que ñoom alal lañu jaamu te moo mën xërëm fuuf il faut nit ñi bàyyi xel loolu yow bi ngay woor da ngaa sukkandiku ñoom diw ñoom diw ne gis nañ weer wi nga sukkandiku ci loolu bi ñu war ñu ne gis nañ nga ne doyuñu 30 jours nan la nan la nit mën a doyadi bi ñu woor Mali ak Niger kuréel ya fa nekk di ay kuréel diine yoo xam ne ay mafia képp nañ compte rek moo leen fa indi di financé touristes yi ñoom ñoo ne gis nañ weer wi tàmbali àllarba Ahmad loo joxe déclaration dafam boobu muy Omar Sarr jottali ko ñoom ñu war ci loolu biñ demee bay wari diggante bi saxooree neexal na leen ci suuf ci biir Sénégal gouvernement bi jox leen ci turam bi ñu wari ñeene gis nañ weeri nañ ñoom alxames lañu wari ñoom ñeen dañu wari alxames ajum la ñu wari comme Sénégalais yi ak waa saxooree ak yu mel <laughs> yooyu il faut xam ko gis nga ibaadu rahmaan yi yéen si ak waxaabi yu nii Muhammad ibn Abdul Wahab moo leen gënal fuufu yonente bi alayhi salaatu wasalaam duñ ko seen sëriñ ñu tudde sayxul islam li muy wax ak li muy bind moo leen gënal fuuf loo xamee ne wóor na la yonente bee ko wax hadis yi mi tuumaal yonente bi te wax yonente bi waxul sax moom lañ gën a gëm ci par rapport hadis yi nga xam ne salaay wax na ba ci téere yi ki sos seen nguur gi ñu koy tudde comme abdul aziz ali shahud moo leen gënal fuuf saxaaba yi ak wak ak wak kër yonente bi parce que ba fii may waxee tuba yi abdul aziz ali shahud ñu ngi ko garde màkka na fi la fa la fa salaay bàyyi woon ñu lakk lépp taal ko diine joo xam ne ci alal rek la tege xaalis man ci ñoom laa ko gisee bépp wahabi wu seen muy dox wala ñu am ibadu rahman wala atajahu diini islami wala ku man di doon benn kuréel bi képp la muy wahabiya wala alfalaa alal dong la ñuy dund moom lañ gëm gëmuñu yàlla gëmuñu yonente bi gëmuñu diine alal la ñuy dunde li feek financement yi ak asaka yi ñuy ànd ak ñoom ci loolu bu loolu ñëwatuñ nañ ko képp amul lenn luñ gëm salaay salaam mii sax dañ ko munte ñàkk wax rek waaye taxul ñu gëm ko cent pour cent jëleel naa saxaaba yi amul ku ñemte saaga ni ñuy saaga sëriñ si noonu lañ ñemee saaga saxaaba yi noon lañ ñemee saaga yonente bi dañoo xam ne bu ñu ko saaga direct nit ñu leen kon yéen lu ngeen gëm dong la waaye ñoom turlisi yi nekk Irak muy daaxis yoon yi ñoo yem loolu la ñoom lañ ko jottali weer daal pour ñu mën koo gis jant bi ko njëkk a lu nga gàtt vingt cinq minutes bàyyee ko longoor bàyyee ko huit degré ñu mën koo gis comme ni ñu ko gisee samedi dimanche ci ngoon waaye saxooree daal moom gisul weer ci appart daal la wax na gis na ko réewi arab yi tamit kenn joxul déclaration ne gis na ko waaw loolu lañ la doon jottali wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.